waaw. Euh, très rapidement rek comme malheureusement leedul dul woon te mujjoon na nekk. Euh, xam naa très rapidement du mën a yomb. parce que l'histoire euh, dafa. Dugaar fu mu nekk. Dugaar mi ngi jam ñaajo. boo jógee ñi mhm. di dem jam ñaajo ba ci station Aïdane mhm. bi boo defee droite di dem ci la route de Mbour Dugaar mi ngi droite ak gauche boo continuer aussi route de Mbour mi ngi ci sa droite ak ci sa gauche. boo jógee aussi baax ñi ba ci demee ba croisement bi ah mooy. fii fii waaw fi muy firee ko yoon bi dem cees voilà bi wàcc di dem Mbour. voilà donc bii dem Mbour. droite ak gauche Dougar la. waaw bii dem cees aussi à droite. Mhm. ba ci péage bi lépp Dougar la. nu mu def ak hôpital des enfants. hôpital des enfants lépp ci Dougar la bokk. lépp ci Dougar kon ci biir. tey tey tey xam naa fu Dougar nekk. voilà et on parle de Dougar des mhm. fois ñëpp dañu yaakaar benn quartier la. ah daan naa ko romb may xaw ma ko woon mais mhm. Dougar donc du lu ndaw. donc ci ci 21 quartiers. ci biir mhm. Diamniadio Dougar constitue sept mhm. différents quartiers. maintenant euh, li ñuy opposé nag ak pick-up yàgg na fukki at la donc xam naa du lu ñu mën a résumé. Mhm. ci lu gàtt. mais dinañ ko jéem. <laughs> waaw ko jéem a tënk. daal ci gàttal. waaw dañuy wax euh, pick-up marocain la. waaw <laughs> dañuy wax ne dafa am titre foncier. waaw déjà pour commencer bàyyi la yor benn et de deux dañ ko jox. suuf. Mhm. ci jamonoy président Ablaye Wade. waaw jamonoy Ablaye Wade jox ko un décret présidentiel. Mhm. jox ko 80 hectares. 80 ci boo jógee Bargny. Mhm. dugg biir jam Diamniadio à gauche. fii gendarmerie bu bees bi nekk. foofu lañ ko defal ci décret présidentiel bi borné ko aménagé ko 80 hectares ci biir décret bi. bi ñu ko joxee 80 hectares yi da ko faa bàyyi parce que voie ferrée bi ma nga fa c'était pas aussi commercial. te ci jamonoy ñu ngi woon ci projet aéroport bi ak autoroute appage bi nga xam ne dafa war a am sorti ci ci ci wetu hôpital bi mhm. donc foofu moo gën a commercial ñu ne fii ñu nekk ni neexu leen ñu bàyyi ko fa glisser de deux kilomètres ba ci gannaaw hôpital ba dem installer fa seen bopp amul décret buy annuler ancien décret bi ba pare amuñu décret bu leen yóbbu fi Dugaar nekk hmm. yàlla nag nattu leen bi ñuy ñëw hmm. dañ fa fekk waa dugar am fa ay këyit en bonne et due hmm. këyit yoo xam ne jiitu na sax ñoom seen nekk fa loolu moom moo leen weer mm. te euh, fii nga xam ne ni fa la leen Ablaye Wade joxoon aussi daa fekk ay batiment yu fa nekkoon ndax malaisiens yi ñoo ko tabaxoon te projet malaisien yi fi nekkoon ñu tabax fi ay villa témoin néeg yi tuuti ba Ablaye Wade daa xaleen loolu dafa nekkoon hors du jour parce que ça est même passé à la télé kon dafa nekk loo xam ne ni di nga mën a toxal ba mu des bâtiment mm. donc fa malaisiens yi nekkoon c'était à l'entrée de Diamniadio moom lañ fa bàyyi dem Dougar mm. waaw mais amuñu ci benn autorisation 80 hectares yi ah. 80 hectares yi nga xam ne dañu jéggi kilomètre kilomètres ni nga wax dem installé wu feneen. dem installé wu Dougar mais bi ñu hmm. ñëwee installé wu Dougar au lieu ñu am fa 80 hectares. Hmm. mënuñu fa am 80 hectares 72 hectares lañ fa am. Hmm. parce que dañ fa fekk dëkk ay dëkk lañ fa fekk. bi ñu ñëwee nag léegi ñoom looloo tax ñu defal leen un bail de 72 hectares alors que euh, suñu législation. Mmh. décret présidentiel. kenn mënu ko modifier. lu dul le président de la République lui-même. Mmh. décret présidentiel il est à l'annuler il est le seul à le modifier mm. donc déjà sur le contexte bi ils ont tout fauté mm. munoo ñu jox la 80 hectares nga dem jël 72 hectares ba pare di am leneen looy laaj mënuñ la jox un point bien précis def ko ci rapport de présentation boo xam ne le ministre de finances moom moo ko defar ne la fii nga war a nekk borné nañ ko aménagé rek nga bàyyi fa dem fi la neex mm-hmm. ci koo xam ne nii mm. li ma gën a déplorer mooy koo xam ne nii euh, déjà c'est pas un sénégalais ñun sénégalais ñemewuñu loolu ce président la république génnee décret nga jël ko changer ko à ta guise mais ki nga xam ne nii dafa ñëw un étranger ñëw mu ñuy imposer moom ci doxinu lu boppam. Mm. ni mu ko bëggee ak ni ko neexee ba pare en plus nos administrations di ko ci fekk si ci loolu. Mm. ci tënk comme mujj nga ko tënk. <laughs> nee woon nga mënuñu ko tënk tënk nga ko <laughs> alors madame euh, madame.